négligence bi ñu négliger commune Darou Khoudoss négligence bi ñu négliger la zone des Niayes en général té Ali Ndiaye wax ko légui bo commencé noto ba lompul lepp luy souf njariñ parce que li cay guen sénégalais yi dañ ko soxla malay rassurer Ali ci ñun gëm sa bop kaddu yi nga xamné di ngeen ko yëkëti dafa nekk ñun suñu programme dañu ne incha allah man Bougane Gueye bu ma jëlee réew ñu jeli ti dara bitim rew diko duggal ci si senegal lolu lolu mom moom jeex parce que lima gem moy lepp lépp lu ñu mënalul ñun suñu bopp waruñu ko wuti dañu war gor góorgóorlu pour mënal ko suñu bopp na nak indi carotte ci rew mi indi supermé ci rew mi indi ñambi ci rew mi indi euh, soble ci rew mi indi chou indi pomme de terre ci réew mi nde ñu ngi koy bayal suñu bopp kon dama lay dolli ne ci yéene bi ñu am ci gëm sa bopp dooleel baykat bi mënta weesu taxawal ay coopérative yoo xam ne ñoom ñooy féetewoo doole ji et pour rejoindre ibre ca la mu wax bay ba noppi doog a jaay dama gëm ne ci wàllu maraîchage day jeex ci Sénégal parce que dañu taxawal agence boo xam ne ñu ngi ko tuddee AGEPA agence d'écoulement de la production agricole nga xam ne baykat bi ci boppam centrale d'achat lañu gouvernement bi di créer boo xam ne boo bayee ñoom ñooy ñëw jënd ko ci yow bu ñu ko soxlaa ñu denc ko ci ay unité de conservation bu njëg bi wàccee wala production bi ñu soxla ko wala produit bi ñu soxla ko ci réew mi ñu mën ko injecté ci marché bi gis nga état bu amul xel amul xam-xam amul njariñ et malheureusement ñi ñu jiite xamuñu naka lañuy def ba baykat bi mëna démal demal parce que ki nga xamné mëna liggéey milliard warta yaakar ko xamné dafa tok di xaar salaire et malheureusement fofu lañ toll suñuy baykat dañu tok di xaar ño xamné ñom ci seen bop mën nañ leen a fay et lolu encadrement dong mom moko mëna régler li ngeen yéene pour def ko ci walu mbay yu bënte galgal ubul làmp il faut yéen ci seen bopp yéen ñoom Mor ñoom Ali ñoom euh, Ibra ngeen jóg ngir li ngeen bëgg yéen ci seen bopp ngeen bokk fa ñuy décider ngeen defal ko seen bopp loolu mooy dëgg Bougane day bëri wax rek te danaa am naa yéene danaa def mais li wóor mooy Ali bu nekkee fu ñuy décider moom mooy def Ibra bu nekkee fu ñuy décider moom mooy def yow vieux boo toogee fu ñuy décider lépp lu jëm ci wàllu intérêt jogo lu jëm ci intérêt Daaru Xuddoos doo ko fooy kon jóg leen ñu àndandoo bu ñu bëggee réew mi dem ci ni ñu ko bëggee ngir suñuy njaboot ëllëg ñu am teraanga suñuy njaboot tekki et loolu dong laa jàpp ne mooy solution bi fexe ba ñiy liggéey ci réew mi seen liggéey mun leen a jariñ waaye bu ñu demee ba nekk ci réew moo xam ne da ngay ñaq di walaakaan di liggéey di torox réew moomu sab yaakaar dafay jeex takk e foofu la ñu toll kon maa ngi leen di tàllal suma loxo pas pour ñu liggéey ci politique comme ni ko politiciens yi di defee déedéet man dama gëm ne vieux sa njaboot yow ëllëg enseignant bi nga doon di préparer le sénégalais de demain sa doom say sët ñun ñoo leen war a préparer war nañoo fexe ba seen ëllëg ñoom gën ñun suñu bos fuuf te mooy li ma gëm